Aliou Cissé su jëlee ku mel ni Kara Kara tey suñ demee bay lam-laamee footballam bokk si liste bi rek nga xam ne dafa am mu demee gaañu gaañu moo tax mais Kara moom su gaañuwul bokk na si suñu yaakaar yi Kara di comme ku ma fonk man xam nu ma koy woowee su may taseeg moom fenn sëriñ bu mag bi ndax comportement exemplaire envers tout le monde Kara mais coupe du monde bi amna comportement bi nga xamni c'était pas ça parce que rek li li mu dund moko metti ba mu woné ko noonu pour man peut-être il n'était pas préparé à ça donc je pense qu'il est temps entourage am ak ñi euh, rappeler ko à la raison parce que jour le bi nga xamni suñu suñu dañuy compter si mom ak yoy mais amna na ñi nga xamni dañ doon comporter woon da nga leen comprendre da ngeen xamni ñi tam nañ ko ay jafara ay jaabal de keeta jaabal de keeta ñëpp lay rob ni du wax ak kenn tak ay casque tam na parce que du jouer benn jour la wax ak nit ñi mooy ba mu joué contre Colombie pourtant jour bobu lañ ñak bobu lañ mënon comprendre euh, jour yi bañ wax ak euh, journaliste parce que fait su amee vraiment mun naa comprendre sa xol fess diis ba doo mun wax ak nit ñi mais ñom c'est yon nekku ci égoïsme égoïsme moo yàq suñu sportif yi et dans la tanière il y a beaucoup de jours trop de jours égoïstes dañ ci fess lu tax nag ma ne trahir alucisé dafa am ci ay jours yi nga xam ni Euh, ñun ñu tooñ Aliou Cissé ne ko listam bi su kóolëre la dafa dawal kóolëre ci dugal yenn joueurs yi ku si mel ni Kara parce que Kara vraiment bon ak li am mun nañu jàpp ni c'est vrai que mu ngi koy weddi ne il était à 100 pour cent mais man pour man li jotu am wane ne il n'est pas a 100 pour cent parce que Ara Kara su nekkee à 100 pour cent day joué dafay joué kon nekkuloon à 100 pour cent Aliou dawal na sentiment wala dara peut-être moo tax mu dugal ko si Diafara boppam c'est vrai que contre le cap vraiment il a été formidable bi mu dugal à Polo quoi ne pas y qualifié Jaafara aussi mais football amul sentiment Jaafara bobu la gëj dox jóge na West Ham dem ren doxul flop lañ koy woy à mais téwul alusi amna am na lu mu xool xool ba dugg andiko donc amna ñeneen ñu waroon comporté woon nenn hein, ba mu des parce que alu jiwu leen ko mais alu je pense que tamit dina si tirer ay leçons parce que sport lañ nek amul sentiment amul sentiment sport lañu nek parce que man xamna naa Aliou bu baax c'est quelqu'un que je respecte je l'ai côtoyé il est rigoureux amna personnel, personnalité am na lépp euh, su ma la waxee dara sax Aliou bamuy dogu jël équipe bi na un an entraîneur yep di defar équipe mom muy defar ay jikko ci biir tanière bi parce que il fallait assainir la tanière et Aliou avait réussi à assainir la tanière maintenant nak limu mu yep en 3 ans yakuna ci ci ci mondial bi ni parce que limu mu ah, finalement même causes yi ñoom andi andiwaat les mêmes effets mais ce sont les jours tey xam nga mënuma tudd kii kii kii kaa mais Kara li mu jot a rek wane na ni am na ay affaires yi nga xam ni pour man entente beeg affaire boobu façade la nii rek li ñuy gis nii mais au fond au fond jour yi euh, ni ñu waroon comporté woo entre ñoom comporté wuñ ko déggoowuñu ils n'étaient pas des mousquetaires et ils devaient être des mousquetaires un pour tous tous pour un les ñu parce que soo demee compétition noonu non mbir yu war Mais demee mais non. la preuve yu ndaw yi ñu wane ku jéewul mer ana équipe bi nga xam ne ni ku jéewul mer ñaata jour ñooñu wax ni que interroger leen ñiy football affaire kii bi lu ko fi andi affaire brassard bi lu ko fi andi lan moo fi andi est-ce que jot na Cheikh Kouyaté moom mooy capitaine titulaire Kara deuxième capitaine vice capitaine Sadio Mané deuxième vice capitaine euh, Kouyaté footballul Kara footballul mais Sadio Mané mooy nekk capitaine.